asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waa ni ngeen ko xame rek ak Babacar du man a ñàkk tey nag dañu ñëw seet si koo xam ne nii yàgg nañ ko seet si waaye tey nag dañ ko seet si waat ci beneen façon muy Jax Mamadou jaxati ngeen gën ko xam ci turu Jax di acteur bu mag bokk ci làmb maanaam bu ñu acteur bu mag promoteur la ci lamb moo xam nit avec frappe bi la lit simple bi fu ci ne mu fay dugal loxom bokk ci promoteur yi nga xam ne tey ah vraiment ñu ngi def lu am solo ci réew mi lamb ji nag fan yi dégg ngeen coow li ci huis clos beeg du ñu huis clos yooyu moom nag defe bokk na ci promoteur yi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi rencontré CNC wala ministère bi ak yu mel noonu ñu bëgg nag tey ñëw waxtaan ak moom ci huis clos bi nu mu ko gisee ak lu ñu tënk ak fu ñu jëm parce que tamit lu ci ne am na les ci war a wax te moom ñaari côté bi da cay tëggi maanaam moom lit simple bi da cay laal ba mu saf waaye day laal ci lit avec frappe bi. di nuyu waa direction Equivox TV yëpp di nuyu waa Akhlu Lamb yëpp di beral nuyu suñu mbokku promoteurs yi rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk kuréel te Pape jiite ko di nuyu aussi képp kuy amateuru làmb di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre. say interview à travers euh, les sites internet voilà. Jax dama lay euh, laaj parce que defe naa loolu faw ñu dugal ko ci yaakaar naa gënoon nga Sénégal temps yële passe parce que daa mel ni Jax am na ñu bëri ñu koy woowee américain yi mm. sa diggante ak États-Unis fan yii defe naa yaa ngi foofu wala. waa États-Unis xam nga sama njaboot ñu ngi foofu donc man foofu laa jàngee def naa fa at yu bëri mm-hmm. yàgg na tuuti mais sama njaboot yëpp ñu ngi fa sama soxnaa nga fa samay doom nga fa euh, sama sama sama ñaareelu kër la. <laughs> fu soxna si nekk ak doom yi moom macha allah moom ñuy nuyu soxna madame kon madame Diakhaté ak njaboot gi ñu ngi leen di bëggee di leen ziar daal. waaw allah macha allah ñoom euh, sama soxna aussi ko xam làmb la ndax euh, papam waa Fass la voilà am na benn journaliste bu ñuy wax Omar ja Omar Dia waaw rakku papam la. Omar Dia rakku kon moom ci famille ñoom Pa Moussa Dia Omar Dia ak Pa xalifa Dia. ñoom xalifa Moussa Dia mooy taaw bi. donc euh, papam mooy Iba Dia na football sax Jeanne d'Arc te nekk Marseille. jaxsak yi làmb yàgg na yàlla na gën a continuer ah euh, nga nekk promoteur fan yi nag fi ñuy jubal rek mooy làmb ji bi corona bi ñëwee ñu xëy xëy tëj làmb ji ne mën a teesu la daje bëri dootul am yow bi nga bi réaction bu amee yow euh, bi bi loolu amee ban réaction la jaxsa jëkk def ah waaw xam nga état dafa bëri doole état mooy lépp mm. état bu ko neexee mën a tëj naa kenn du def dara te mënuñ ci dara ñoo yor seen doole ñoom lañ fi teg ñoo fi ne donc euh, boo xoolee ni action yi demee par rapport ak li nga xam ne moo fi ne dafa am tuuti injustice ci sama njàng man njàngat jàngat waaw injustice ci lan maanaam injustice ci yëf yi ni muy doxe boo ne état mu yor doole hmm. ne tëj naa ba pare ubbil ñeneen ñuy liggéey te ñun ñëpp ñoo yem ci Sénégal su may tëj damay tëj lépp su may ubbi ma ubbi lépp mais mënuma tëj fii ñu nekk ci marché yi di jaxasoo ñu nekk njaga njaay ñu bàyyi leen ñuy chargé nit ñi amuñu amuñu masque bus yi sax ñoo tane parce que busu car boo fa duggee dañ la naan takkal masque baa ngi wàcc mais bu dul busu car beneen foo dugg gars yi lu leen neex la ñuy def ñu ngi jaxasoo ci dëkk bi nit ñaa ngi organisé yi ngénte ñi di takk ñi di leneen ñi di leneen amul benn benn benn benn benn mesure bu ñu jël bu strict boo xam ne pour que lépp ñu xam ne lii mu la état def strict na nga bugg a ñëw ci làmb ji strict loo ko pour lan. kon loolu yow da nga jàpp ne wate taxas wet la. mais bien sûr amul leneen ñëpp xam nañ làmb nu muy fonctionner boo amee xam-xam nag nga xam ne làmb nii lay fonctionner yow da ngay boo booyee ubbi sport da ngay andi xel boo xam ne day tax làmb mun a fonctionner. mais bu fekkee làmb public lay fonctionné nga ne public du fa ñëw loolu mooy lan. ah mais public du fa ñëw est que du dañ koo teg ci ay côté sanité wér-gu-yaram geeg yooyu parce que comme dañ ne feebar yu jaxasoo lay bañ. Babacar làmb xam nga ne public la bu amul public lamb amul hmm. mën nga def ne mun naa par exemple ok mesure sanitaire la damay def huis clos dinaa leen jàppale financièrement loolu yëpp d'accord mais nag munul bañ am public hmm. stade ba 22000 places la. nga may ñu 2000 sax 2000 ci vingt mil ku ko mën ko ban problème la am 2000 personnes ci vingt 22000 places bu kenn toogee fii 10 nga tëb tëb fukki chaise teg keneen ani problème bi nañu waxante dëgg rek mais ne kenn du fi dugg. Ah, kon yow huis clos bi gars yi wax ni àndoo ci kon su ma la déggee xanaa. man bi ñu nee huis clos dama ne damay tëgg amul problème mën naa tëgg lutte simple mais bi ma déggee démb bi ma liiree journalu tey ah. Thierno Abbas euh, Ka. mi nga xam ne mooy docteur bi yi mu wax ah delluwaat naa ginnaaw parce que li mu wax mënuma ko. lan la wax ci lutte simple bi moom. non daf ne waxul lutte simple lutte simple ak lutte frappe la wax daf ne bu ñuy tëggal lutte mbër ba dañ koy testé ji entourage mbër bi dañ leen di testé ji 72 heures avant ña jege mbër bi dañ leen di testé arbitre dañ leen di testé euh, sécurité ba dañ leen di testé ñun ñuy organiser dañ ñuy testé. Ah, loolu da ngaa yaakaar ne mënta ne. koy testé koy fay. Ah, yéen waxuñu leen kuy fay test ah, animu daf ci wax dara lu leer ay bu promoteur bi proposé bu amee sponsor rek bu egg léegi waxu picc la rek. qui va payer imagine man ma organiser benn lutte simple bi ma buggoon def dama noon damay tëgg leen simple 5 millions 5 millions c' est 128 lutteurs ku nekk ànd ak ñaar donc tu as au moins 360 personnes yuy yuy testé wu si mbër yi kese ak seen entourage promoteur mën na ko fay. ah wax baa ngi foofu. bii mu wax moo tax ma reculer man taxawaat. comprendre nga li ma wax loolu yëpp li ñuy bëgg a teg làmb làmb attanu ko soit ñu ne du tëgg du mu jeex ñu xam ne jeex na mais yi ñuy wax ne wër-wër la parce que avec ces tests là du sotti mun loo teste ñëpp ce n'est pas possible parce que nit ñi di dox ci dëkk bi kenn testew leen l'état xam na lu xew ci dëkk bi nañu waxante dëgg ou bien dañuy bàyyi ñu liggéey ñu def le minimum possible ou bien bàyyi ñu ñu liggéey ñu arrêté ko parce que mais du xaalis kese xaalis kese. non bu même bu ñu bu ñu joxee financièrement xaalis sax du xaalis kese. parce que yéen dafa mel ni dalal nañ leen ba wax leen waxu xaalis ba ngeen am lu ngeen tëngante ak ñoom da ngeen a tëngante ak ñoom ci mbirum xaalis ak yu mel noonu. non samedi lañ leen dalal ma nekkuma ci woon yëguma ko parce que man du ma yëg lépp. lu tax yëgoo ko doo promoteur. man yëguma ko dañuy envoyé affaire ci groupe groupe bi wax man actifu ma trop ci groupe bi du ma déglooti ay vidéo comprendre li ma la du ma déglooti ay vocal su ma kenn woowul na ma réunion am na du ko yëg. réunion bi ma ñëw CNG démb bi ma ñëw fekk fa waa lutte avec frappe dama dama jaaxle parce que man si lut simple laa yaakaaroon ñooy réunion waa lutte simple ñoo ma woo Ablaye Diop suñu président que je salue passage ne ma am nañ réunion barka démb CNG pour affaire ñu xool lut simple bi naka lay toggee et cetera compensation yeeg nañ leen di indemniser ak affaire yooyu ku nekk na na def bilan li mu defagum ci saison bi 2000 bi passé 2000 2019 2020 ma defar sama bilan. ñëw fa bi ma ñëwee man dama xaw a sax bi ma ñëwee egg si gis fa ay promoteur lutte avec frappe fa bi jaaxal ma parce que ñoom waxuñu ma dafa ñu am réunion te bu musaan am réunion dañ ma yónnee message ne ma am na réunion ma dem tout le temps mais bii waxuñu ma ko samedi amoon nañu réunion ci ministre man yëguma ko dew ma fa mais c'est pas grave man bu ma demul tamit am na dem il représente bien la le groupe mais li ma jël ci ñoom par rapport ak bi ñu demee mhm. mooy que ñoom nee nañ dañuy ubbi huis clos man foofu laa ko déggee bërka démb dew ma woon samedi donc xaw ma woon affaire bi ma ñëwee ci réunion bi laa dégg ñu wax waxu huis clos ne état bi daf ne daf ñuy compenser parce que ñoom dañ ne du ñu tëgg di perte te muy dëgg donc loolu ba léegi état bi waxul conditions yi nga xam ne moom lay compenser loolu leeragul amaguñ ko ñu demander promoteurs yi ku nekk def bilan wu combat yi mu war a tëgg wax bilan financier wax ñaata la war a dépenser ci combat ba mu egg déposé nañ loolu CNG man ba may ñëw CNG bilan wu lutte simple laa def démb laa delluwaat yóbbu bilan wu lutte avec frappe parce que ba ma demee barka démb ci laa yëg loolu donc li woor mooy nee nañu dañuy compenser dañuy jàppale financièrement naka lañ lay jàppale ministre bi waxagu ko ak ay groupe dañu ne ne bilan yi ñëw ba pare ñoom ñu étudier bilan yi door a wax naka lañ ñuy jàppale mais man mun naa jël ay avant-garde wax ne par rapport ak li docteur bi wax ñun waa lutte simple loolu mun munuñu ko yéen waa lutte simple mënu ngeen lool. mënuñu ko. y' a trop de non y' a trop de gens ci lutte simple bokkul ak lutte avec frappe. kon yow euh, ubbi bi ñu nar a parce que bu ñu dégloo dafa mel ni ci yenn ay quelques promoteurs daa mel ni affaire frappe bi ñoom est ce que d' accord ci ubbi dafa wékku la ñoom daa mel ni am nañu si d' accord ah. dañu ne d' accord nañu à condition que ñu xam naka la ñuy compenser. bilan yooyu il faut état bi jot ko ministre bi jot ko étudier ko ay nitam mhm. tontu si wax na nii laa leen di jàppale parce que bokkuñu ay prix Babacar day organiser journée peut-être 15 millions la. 15 man ci ndaw ñi laa ma organiser peut-être 6 millions wala 7 millions la. Mhm. keneen organiser mu nekk 30 millions. keneen organiser mu nekk 20 millions keneen 200 millions bokkul donc ni ngay compenser mënul tolloo. mënul il faut état wax ñu naka la. mais compassion bi bu ngeen ci demee. ñu convaincre leen maanaam ñu maanaam ngeen ñoom ñu fexe ba convaincre leen ci compassion boobu mu ngay wax noonu. est-ce que yow bu keroogee pare nga pour tëgg. non buñ ñu compasser man ma tëgg sama combat dóor benn bi ma fi des daf ma sonal. Ah, non dese naa benn combat daaw laa ko waroon tëgg le 14 juillet buñ ñu nee compensé nañ même bu ma si amul dërëm ma tëgg ko xale yooyu mën a libre. ban combat la. Euh, Ablaye Diop ak euh, ak euh, Ousmane Ngom. dañ ko dañ ko taxawaloon Ablaye Diop blessé à la cheville. mooy journée bi ma defoon janvier après ñu reporté ko andi ko fii même booy daanoon fa la ñëwaat fii amaat ñeneen ñu ñu war a dajal ma amoon date le 14 euh, juin daaw pour ñu def ko ko malheureusement gis nga lii ñëw mënul nekk bu ñu compensé bu ma si amul dërëm sax remboursement kese su ma ko amee tëgg làmb jooju mu jeex ma pare ci dóor taxaw di leen seetaat. mais simple ba moom xalaatoo caa dem nii xalaatuma ko non non non non non il mu leer nañ affaire test yi il ñu xool ko. xam kan moo koy def kan moo koy fay attends imaginez cent euh, trois cent soixante tests. mais bu état bi nangoo fay test yi yow di nga dem. mais bu buñ nangoo fay test yi condition yi koy fay il faut nga jël distance man kese nekkuma lutte simple. waaw loolu la promoteur yi dañoo bëri macha allah. man grand événement laay def man mun naa tëgg grand événement dem gisi Equivox mu defal ma euh, pay per view wala keneen mu defal ma pay per view man mun naa ko. mais petit événement Adrien Senghor dañu ko fay pay per view ban mbër a ñëw pour un million imaginez àll bi li fay tëgg ci làmb ñu ne leen du nit du fa dugg est-ce que xalaat nga li ngay wax mun ta nekk ñooñu mënuñu def pay per ci àll bi fu ñu koy defee ak ban technique parce que ñoom boo xoolee tey ci journal record liir naa parce que ñoom Abdou Waxal ñoom Mame Diarra can maanaam wàlli simple bi yëpp kenn ak ñoom euh, Kële Doudou Faye maanaam ñoom d'accorduñ ci huis clos ñoom moom laa lay wax ni comme li nga wax làmb du dakaar kese. waaw loolu am na moom làmb simple bu ñu koy wax àll bee tax ñuy wax. li ñuy tëgg ci àll bi mat na ay cent gala. Mhm. dakaar am ay ay 60 ki 80 gala ci année bi Adrien Senghor rek fi tëgg. Mhm. à part à part benn exceptionnel nga am ay gala yu mag. Mhm. comprendre nga donc ci àll bi la ëppee bu ñu nee àll bi kenn du dugg ñoom lu ñuy def. ban ban télévision moo am doole wër àll bi naan day pay per view non nañu waxante dëgg rek techniquement laay wax de. mënta ne mënul nekk. ça c'est un problème loolu la gars yi woote réunion après bu soobee yàlla fa laay dem pour waxtaan si ak ñoom. Dakar mën nañ ko def. Mhm. grand événement. Mhm. nga def fay per view. Mhm. mais affaire test yi c'est un problème. waxuma duñ teste mbëri de. waxuma loolu na leer mbër yi foo ñu testé leen. mbër bu feebar mënul ñëw wàlla moromam. mais mais yow daal fay ga ngay wax kan mooy jël charge boobu. voilà na bu état bi nangoo jël euh, charge charge fay mbëri Covid yeeg yëpp man mu naa organiser lutte simple. mais am na wax bu wax sànq est-ce que may leen maanaam tey bu fekkente ne 1000 personnes war a dugg ñu ne na 500 personnes dugg est-ce que loolu tamit war na a ne wala. mais mën na nekk. loolu du ngeen ci mën na ne mais da ngay xool fan lay nekke waaw parce que ci feebar la ñu ne. dañuy dañuy aar nit ñi. Ah, bu dee am nga stade boo xam ne. wóor na la ne fii mën nañ ko cadrer ba nga xam ne nit ñi duñ fa jaxasoo mais arène nationale mën nañ ko. Ah, dafa am espace. Ah, mën nga teg ay ay ay ay nit de sécurité ci ay ligne bu nekk. Mhm. ñuy contrôler lool duñ lijjanti làmb ji. Ah, boo nee 2000 personnes sur 22000 places kenn day toog fii kenn toog fële duñ sax xaaja jigéente. na Angleterre gis nañ fa lu mel noonu seen championnat bi. mais bien sûr loolu dafa logique. mais boo nee rek huis clos la huis clos la mënoo régler public loolu waxu. dégg naa docteur bi mu ci wax mais maîtriser wul li muy wax. ah docteur bi maîtriser wul wax. non muy wax ci affaire publique. ci public xamul làmb. làmb da nga koy xam balaa nga ciy wax xam na métier am xam na ay mesures yu ñu jël mais xamul làmb ne bu kenn daanee ñëpp daw tëb non je je regrette je regrette. boo nee 2000 personnes nga fa def tas leen bu ñu tëbee tamit ku ne fi nga tëb yaa fay tëb yow kenn doo wàll kenn parce que am na espace mm. mais mënoo ko def Adrien Senghor parce que dafa xat. tu peux pas mettre 1000 personnes là-bas xëy na 200 personnes nga fay def et encore mënoo ko def ci àll bi parce que amuñu stade ay bayal la loolu mooy loolu mooy rek loolu mooy problème technique bi daf si am solo mais mën nañ dugal mille personnes arène nationale même bu dee bëre dóor wala bëre simple toujours day mel ni huis clos la rek ñu tas leen ci suuf ak ci kaw nag du nekk ci suuf rek. Ah. waaw ok léegi fi ñuy jeexale mooy dañu dégg ku mel ni Aziz Ndiaye bëri ci démb wala démb mu génn xam le ne moom pare na ngir jàppale ku mel ni Gaston Mbengue wala sax parce que mbërëm pare na pour bëri huis clos waaw Aziz ndaanaan la Aziz moom bu ñu amoon fukki Aziz Sénégal fii làmb du am problème nañ waxante dëgg rek ku nekk da nga koy jugé ci ay actam ay actam Aziz a toujours été quelqu'un ba mu nekkee promoteur ndaanaan la ci woon ba mu bàyyee promoteur tamit di jàppale nit ñi mu ngi jàppale ñi muy jàppale honnêtement dañu waxante dëgg bu ne mën na jàppale Gaston Mbengue c'est qu'il va le faire mën na jàppale peut-être yeneen promoteur il va il va le faire Aziz du wax lu mu lu mu mënul def te xam na làmb xam na ni mu leen di jàppale donc Balla Gaye bëre ak kii huis clos ah bokkul ak Mor Ngeer ak kële di bëre. Ah, waaw yàlla na ko yàlla yërëm voilà maanaam parce que parce que parce que <laughs> est des combats de centaines de millions. bien sûr loolu compensation boobu du yomb. Uh-huh. Euh, sponsoring ba tamit mënul am doole doole ba compenser la waa ji perte. dafa jara xoolaat daal étudier financièrement. Uh-huh. mais nag initiative initiative Aziz Ndiaye. dañ ko war ñaanal. yàlla yokk ko andil ñu ñeneen ñu mel ni moom ñu koy ñaanal au passage di ko nuyu vraiment kontaan nañ ci moom. am na solo waaw léegi Jax ma termine ak yow rek parce que loolu mooy dernière question bi xulle maanaam fan yi paas dañu fi déggoon ci 27 millions yi ne dafa génnoon ñu ne dañ ko séddalee ni ñu ko séddalee Jax mu mel ni da nga d'accord kon ci nañ ko séddalee yow loolu loo ci mën a leer bu fekkee yow yaa wax ak loo wax. maa ko wax parce que c'est illogique jaaduwul lu jaaduwul dañ naan jaaduwul ñun ñëpp ñu fay licence 300000 francs nekk ay promoteur dóor am ay journée ñii ne nañu régulariser nañ ñun ñu ñëw ñu jàllaaj ñu un million pour ñu jox ñu date ñu jox ñu date man ñu jox ma la 14 ñeneen ñu jox leen yeneen date ba ñu egsi ci loolu ñu def seen yëf ci suuf ñëw jox ñi leen neex euh, na ñi ñoo régulariser jox nañ leen ñu si des bokkuñu pour lan ñun ñëpp impacté wuñu ñun ñëpp joxewuñu avance ay mbër ñun ñëpp avance ñi si ñu si bëri en tout cas man avance naa un million ci sama régularisation sama régularisation un million trois cent mille la lu si des du 375000 ba ñu ma ko laajoon au départ ma jox leen ko ba ñu egsee ba ñu demee ba ñu xam ne Covid la dañ leen woowaat ñoom ñëpp ñu régulariser delloo leen seen xaalis kon ban différence la am ak ñun man dañ ma woo fin de saison ne ma ñëw jël si 1 million wax ma bu fekkoon dañ fa bàyyi seen xaalis mu des fa ba tey mu des fa ñu mën a wax mais xaalis ba fa des dañ leen delloo seen xaalis ñu tollook ñëpp régularisation amatu ci avance moo fi am nit ki da ngay réfléchir am ci ay mbër. jeex na ñun ñëpp avance képp ku amoon date ba fin de saison dañu la war a indemniser loolu mooy dëgg te wax bi nekkul foofu du affaire ay 27 millions làmb 27 millions indemnisé wu ko bërka démb dégg nga gis ma génn ci journal bi na état bi génn 6 milliards laa wax jox mbër yi 4 milliards yi wala mu indi ko ëpp jox leen ko mbër yi ñoo gën a impacté wu ci affaire bi ñu séddale yi ñu jox leen 600 millions laa calculer pour écurie yi ñoom ñoo xam ni ñuy après promoteur ñu jox leen 500 millions. dóor yi frappe simple 500 million li si des ñu jox ci presse bi jox si ñeneen jox si ñeneen dugal CNG 250 millions lépp ci biir 6 milliards yi la. 250 milliards yi boobu kenn du fay licence déwén ren jii kenn du fay muy mbër muy écurie muy leneen jëp ci biir la nekk assurance yi ci la nekk. ancienne gloire lép ci la nekk ci samay calcul man ci 6 milliards kese. Ah, culture daf ñu gën a gën ba ñu koy jox 5 milliards et demi <laughs> ñun ñu ñuy jox 27 millions loolu xel nangu ko. kuy def fii sport lamb la ëpp ëpp adepte am nañ 4000 lutteurs inscrits à peu près am nañ plus de 2000 lutteurs yoo xam ne ils sont pas inscrits mën nañ jox écurie yi 600 millions loolu ñu leen jox dañ ciy dimbali mbër yi inscrireul mais 4 4 milliards yi ñu jox ko mbër yi inscrits parce que am nañ licence boo koy séddale da nga xam ni nga koy séddale CNG mooy andi andi liste bi ñii ñoo am licence daaw ñii ñoo ko moom parce qu'ils sont impacte mooy am nga combat amoo combat tu es ji foofu la nekk. état na génneel lii àqu làmb mu joxe ko coow li bari na trop fan yi ku nekk yaa ngi wax parce que 27 millions du dara c'est rien du tout dimbaliwul promoteur coow rek la fi andi la preuve gis nga ko voilà. kontaan si yow. maa la gën a kontaan mon frère <laughs> voilà. <laughs>